Yeah. gis nga ëpp doole surtout bu ngoog ñooñu lan nga doon kita waaw maanaam ñu gën a kontaan ñu Kita a yokku man la kenn sa xar ndax sa daay waaw. doole moo kita mboxam waaye ñu simbe moom na wala moo ëpp doole rek ñu gën a def ay coono gën a liggéey su combat bi gën a financé su combat bi yàlla ko yàlla may ndam loolu lay yor kii nga ni a a bi la waaw moo tax ma bëgg ko daane boole ah, dañ koo seeti mu ne euh, gisul mëniinu euh, ki nga xam ne moom mooy Siteu bu noonu bëre amul doole dem na Maroc waaye ay maam la naan moo tax day yokk bëriw ay maam la naan mënul bëre dara daraam daal yëngu ko ci. bis bi day góol. tey mën naa taxaw fi amul bëri amul doole mais su ma ko waxee yéen taxaw fi doole ko gëm parce que moom li ko war comprendre nga man de pour ma wanee waa làmb ma foog ñu jëflante ba pare di sant ma fi yaa jàmmagal bi yow bu waa ñoom Aïssa Seras Tafa Kara ñoom Bamba Lafa Saay gaay ñoom Franc moom góor musu koo diriger ci làmbam kombaam ak papa booy ay combat yu bëri gis na góor mënu koo diriger nee na yow dañ na da nga koy diriger nee bu arrêté sifflé dina góor mosu koo diriger waaye ñaan nañu yàlla diriger ko man samay kilifa rek laay déglu su ma ñëwee rek xam na ne xale bi yeewi nañ ko moom samay kilifa bu ma yeewee bis bi yow nga xam man yeewi nañ ma yeewi doomu yeewu laa. waaw combat bi tam mooy divisé yow wala moom. déggoo li ma la wax xanaa su ma taxawee fii naan man mii laay bëre wala mii laay def comme sama père li ñëw bu yàggee mu dama cité nii ngaa xalaat. comprendre nga dama xamante ne waxtaan bi wér na moom li muy indi mu si changé dara mu si tegi dara maa ngi toog sama tàngoor bi ma xalaat xeex bi loo ci wax am koy préparé xeex bi. waaw xeex ndax bis mi nee na day xeex day bëri. bàyyi baal ci loolu laa doon jëm. gannaaw bi ñu sant yàlla gërëm ñu fi nekk ñëpp di gërëm promoteur bi petit ñu koy gërëm bu baax a baax bàyyi ba la ci question boobu nga ñëwaat ci laay ñëw dañoo gis benn bis bi. xeexkat la te booy bi ku ne xam na ne mbër la boo xam ne day xeex est-ce que moom fas yéene na jàkkaarloo benn bis bi xeex ak moom raag ku ne xam na ne moom day xeex mais est xeex bi ngay woote ñeme nga jàkkaarloo. ak samay supporters dégguñu waaw bu nekk si la moom moo laaj xeex moo laaj lépp moom lépp la may léegi bu nekkul xeex bi maa ngi dañuy jure waaw te dinañ jure nag waaw incha allah léegi jure dina jure waaw di sant ñëpp di gërëm ñëpp waaw. xale yi nekkoon ci yow yëpp dina leen freiné ku ci mel ni Bébé Talla alliance Kuréem ba ci Baba Jaxal mi ci si ko bu mu waaw man xale laa rek waaw. yi bi duggee bi ma nee bi ma ñëwee si làmb yàggu si làmb laa ko xeeb waaw li may ñaan rek mooy bés la ñu def lépp xale wala suñu kaw waaw suñu waaw waxam man yaa teg jeexal naaj la bi waaw man yaa waxaat teg jeexal naaj la bi waaw maa leen di woo si bés bi loolu rek yëpp léegi léegi ci wàllu mobilisation bi ah ak ci wàllu sensibilisation bi supporters yi ci fair play lan ngay wax say supporter ndax su ne bëggoon gis nañ ni saa buy bëre li koy topp ci stade bi macha allah dafa bari lan ngay wax supporter waaw Baye Balla samay supporter nit dana laaj seen xel rek di wax ne ñun xam nga war nañ déglu ñun duñ tooñ kenn waaye ku ñu kenn tooñ. bolo gi bolo gi ñaata la waaw bolo gi ñu lan bay baal la bay baal la wuy ko ne jënd na 10 ba ngay bëggaat yeneen. jënd nañ 10 bloc jënd nañ 10 bloc waaw bu wane xaalis bi yóbbu te bëgg nañ jëndaat yeneen 5 ba ci après borom yi toog di ñëw suñu borom la. waaw ñi ngay gis fii rek ñooy joxe seen fukki dërëm ceeb naa ma bu dul naa ma ñuy kon yëpp ñoom la waaye tamit gërëm sama exemple sama porte bi la mel yëpp mooy jigéen ñi xam ne maa leen di première bis nga koy indi nan nga koy wax dëgg bis bi nga xool ko les yeux dans les yeux xool ko live and direct nga wax ma lan nga yokk bis ñu xool xool ko moom. waaw bis bi waaw instant bi wax nañ ba laa ma ci jar waaw lan wax nañ toog nañ laa ma ci fi jar kon liy def bu baax liy def xam nga mooy jëf bu nga fay la bu àggee si def def def jàmbaar waaw buñ daanaka bu mu ne dafa defoon léegi dafa defoon léegi waaw jàmbaar jàmbaar la doon da ngay doon da ngay doon lay doon. waaw moo tax ne la booy doon damay doon ku lay ragal saa naa lay jéggi damay wax waaw booy doon damay doon ku lay ragal. si de combat bi da nga ciy am confiance bu ëpp da nga ciy am confiance bu ëpp lan la sama yaram. wala waa yaa ngi yàlla kàttanal doole ñu xam ne jëmbatal di wax ne làmb ji dañ ne ko def si jàng ak teey li fay am yëpp mën naa koy def waaw loolu maa ngi ko dig samay dimanche incha allah ñu féetee suñu ndam si kàddu gi borom bi. waaw.